رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di julli di salmal si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan sunu borom dolli ko xewal ak yërmande ak mucc moom ak waa këram ak ay saxaabaam ak képp ku topp seen yoon ba keroog saa di taxaw kon tey nekk sunu juróom-benneelu fan ci am ne dañ ci ànd ak al ustaad Omar Diallo xafidahu llahu wa raa ngir nafar téere bu am solo boo xam ne dafa aju ci sellal bakkan mooy at taskiya ak ay jikko yu rafet mooy tuxfatul mushtaaq arbauna xadiisan fi taskiyati wal axlaaq ci bind bi weesu ñu ngi taxawoon ci alxadiisu rabia wal ishruun mooy xadis numéro 24 te mu nekkoon di wax ci kadmul gayr mooy wann aw mer kon tey incha allah ñu ngi war a tàmbalee ci xadis numéro 25 ah ñu ngi war a tàmbalee ci xadis numéro 25 si tiiru al al ixsaan di leen fàttali rek ne incha allah ba léegi concours bu ñu waxoon dana ami mooy li aju ci mokkal vingt xadis yi ci góor ñi jigéen ñi tamit dis xadis yi incha allah ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu danañ am ay jawaayis incha allah kon duñ guddal dañuy bàyyi al ustaad mu tàmbale wala tafaddal mashkuran mahjuran
bismillahi irahmaani irahim alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ñoo ngi àggale li nga xam ni lañ toll woon ci suñuy xadis xadis yi fi jaar yëpp nekk xadis yu mag yoo xam ni koy jàngale jikkoy rafet yu baax mais di wone aussi taaru lislaam mbaaxu lislaam ak grandeuru lislaam wane na jullit yi jikko yi suñ ko jikko woon ñooy gën ci kaw suuf amaana sax du aajowoo léeg-léeg ñuy daawa di jàngale jikko yi rek day woon ni ñuy ñëw ci lislaam mais malheureusement li ma waxee woon jullit ñi góor-góor lañ bu baax surtout bu dee ñiy dund sunna ci côté pas-pas alhamdulillah côté jaamu yàlla alhamdulillah mais côté jëflanteeg jikko mooy bunt bi nga xam ne war nañ ko corriger war nañ ci def ay correction war nañ ci góorlu góorgóorlu ñun ñëpp ñoo ci yem ñun ñëpp ci war a góorgóorlu gën ci defaraat suñ bopp liñ fi jàng ci ay jikko yàlla xam ne ne néew na nga dem ci beneen diine bu dul lislaam nga fekk ko fa jikko yi ñu fi tudd bañ tàmbalee ba léegi mu nekk jikko yoo xam ne nit mënta bind mënta bind ci wàllu bon comportement ba indi ba indi lu féete kaw lii wala lu gën a foor lii amul kon ñun dañuy sant yàlla bu baax bi ñu amee diine joo xam ni ah jàngal nañu lii diine ju la jàngal nooy jàngal la soo meree nga wann sa mer kasmul xaysi jàngal la salaamatu sadri sa dënn dafa war a set ci li nga xam ne mooy ñeneen ñi jàngal la rifqu mooy nga nooy jàngal la alxilmu wal anaatu nga ànd ak dal nga ànd ak dal bañ a yàkkamti bañ a gaaw wax gaña gaaw a def wala gaaw wax lu la wóorut wala gaaw a def loo xam ne da ngay rëccu diine bu lay tere nga def lu lay merloo laa tax dab moytul lépp lu lay merloo éviter ko mënoo ñàkk a mer mais éviter lu lay merloo parce que nit moom foog nga mer mais yii nga xam nga ne yii moo lay merloo wax yi moo lay merloo fréquentation bi moo lay merloo nit ñi ñoo lay merloo place bi soo fa demee mer ah éviter loolu. loolu wax dëgg yàlla diine ju mel noonu lu rëy la tey ñu war a def alxadis alxamis wal ishrun muy vingt cinquième xadis. mu ñëw ci al ixsaanu al ixsaan mooy la bonté mooy la bonté mooy mbaax mooy mbaax al ixsaan rafetal ixsaan dafa am ñaari façon bu fekkee al ixsaan ci wàllu aqida loolu moo la yonent bi firi ci xadisu jibril an taabudallah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mais bu ñu waxee ixsaan ci buntu axlaaq du loolu moo tax gis nga diine terme yi foog nga jàng ko al ihsaan bu ñu ko waxee ci buntu jikko nekkul an taabudallah ka annaka taraax déedéet mais bu ñu ko waxee ci buntu aqida mooy an taabudallah ka annaka ka annaka tara moo tax terminologie yi muy terme yi moo yi souvent moo bu nekk dafa am place am boo xam ne fa nga koy yóbbu baatu illa rek boo ko jëloon ci làkku arab boo waxee illa ci làkku arab mooy almarad mooy feebar dañ naan fulaan alil ay fulaan marid boo nee illa ci naxu ci grammaire arab mooy trois lettres yi ah al alif wal waaw wal yaa boo nee illa ci usulul fiqh mooy al wasl mu asir fil hukm boo nee illa ci xam-xamu xadis mooy sababun xafiyun xaamid yaqdaxu fi sixat al xadis boo nee illa ci wàllu logique muy falsafa wala mantiq moom moo gën a garaaw ñoom ni ñu koy firee mooy ay mbir la yoo xam ni ci ngay basé wu pour mën a am aperçu ci juger benn mbir kooku mooy illa ci wàllu philosophie wala ci wàllu logique mantiq kon nga gis baat yi baat bu nekk fa ko boroom xam-xam yi dugal foo comprendre ne baat bi fii lii la fiy tekki di nga wax catastrophe te catastrophe yi mi ngi bëri parce que booy jàngal sa bopp wala nga sukkandiku sa dégg langue arabe di nga def catastrophe parce que mots yi li ñuy tekki ci langue arabe souvent ak li ñuy tekki ci texte charia yi day wute des fois même ci texte charia bi contexte bi contexte bi muy tekki fii day wute te loolu am na xadis buy ñëw dina dinañ ko gis ci kanam. al ihsaan kon mooy rafetal an Shaddaad ibn Aws mu ne jëlee nañ ci Shaddaad ibn Aws Shaddaad doomu Aws la Aws ban Aws mooy Aws ibn Saabit ah Aws ibn Saabit Aws ibn Saabit boobu kan la mooy frère Hassan ibn Saabit. Hassan ibnu Saabit mooy kan mooy poète yonent bi alayhi salaatu wasalaam shaa'iru nabi lañ ko doon lañ ko doon talqiibe moom dañoo doon dàkkantale shaa'iru nabi arabe yi dañoo fonkoon littérature dañoo fonkoon poésie avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw loolu moom mos a nekk ba ba jamono ji arabe dañoo fonk littérature parce que arabe yi dañoo mën a wax moo tax yàlla tànn alxuraan wàccee ko ci làkku arabe parce que ñoom jamono ji nit ñi di développé di nekk ci yëpp ñoom arabe yi booba seen seen miracle moo doonoon wax. ñoo dàqoon a wax lu yàlla bind ci kaw suuf ñoo dàq moo ñoo dàqoon a mokkal ñoo dàqoon a jàpp benn waaye mooy taxaw fii wax benn poème benn xasiida boo xam ne mille bayti la mille mille vers la mu pare benn waaye ñëw répété ko tari ko jaaraat fi mu jaaroon te du ci yàq dara loolu kéemaan la woon ci arab yi beneen bi ñoom ñu jàppoon ne wax nit mënta wax a wax ba wax luñ xamut wala làkk ci arab luñ comprendre wala làkk lu supérieur ñoom li ñuy làkk ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw mënul bind ah mënul liir làkk lu sut lu ñuy làkk maa kunta tadri mal kitaabu wala al iman alayhi salaatu salaam ñëw làkk lu féete kaw la ñuy làkk ñu jabolise ko kon sawbaan ibnu aws aws ibnu saabit aws ibnu saabit frère hassan ibnu saabit la ñoom ñaar ñëpp ñu nekk li nga xam ne mooy saxaaba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam Shaddaad saxaabi la frère am di Xassan saxaabi la Shaddaad nettali na xadis yu bëri laa tazalu taifatun min ummati mansuura ala alxaq xadis boobu moom moo ko nettali Sawbaan ah wala wala Shaddaad Shaddaad nettali na ko Sawbaan nettali ko qaal nee na sintaani Sawbaan mi mi ngi faatoo Palestine mi ngi faatoo Palestine ci l'an l'an cinquante quatre ci Égypte mu ne sintaani ñaar a ngi nii ñaari mbir a ngi nii yoo xam ne xafistuhuma par kër par kërise naa ko mémorise naa ko mokkal naa ko an rasulillahi ci yonent bi laa ko jëlee mokkale ko ci moom sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne inna allaha naka yàlla ci boppam kataba kataba mooy dafa farataal kutiba alaykum siyaamu ay furida alaykum siyaamu kataba rabbukum ala nafsihi rahma ay farada ala nafsihi rahma baatu kataba ci littérature arabe kese boo ko doon firi ci firi littéraire mooy mooy bind na mais kataba bu bëri ay sens day firi farada léeg-léeg baat yi mooy li ma la wax boo ko jàngul def musiba comme baatu daraba allahu masalan mooy yàlla joxe na exemple mais du dóor te baatu daraba ci làkku arabe li muy firi mooy dóor am na ñu koy firee dóor dëgg la. mais firi boobu xëy na pour pour yombalal nit ñi mën ko dégg waaye joxe misaal ay aata misaalan daraballahu masalan ah inna allaha katabal ihsaan yàlla dafa bind wala dafa farataal dafa farataal rafetal ala kulli shay ci lépp yàlla dafa dafa santaane dafa farataal lépp lu ñuy def na rafet waxoon naa leen ko fi bu dee wax na rafet wa qulu linnaasi xusna bu dee say jëflante ak doomu aadama yi na rafet say jaamu yàlla na rafet say jaamu yàlla na rafet ah pas-pas bi na rafet ah, jikko yi na rafet dafa farataal dafa warataal ci doomu aadama yi ñu rafetal lépp da leen a obligé daf leen a sant ordonné daf leen a ordonné lépp lu ñuy def nañ ko rafetal fa isa qataltum sooy rey fa ahsinul qitla rafetal reyin bi sooy rey dara na nga rafetal reyin bi léegi rey ak rendi du benn rendi moom foog nga utiliser paaka mais rey mën ngaa rey te li ngay rey doo utiliser paaka menental soo ko utiliser da ngay jël paaka di ko rend ah mbóot soo koy rey xam nga soxlawul paaka yooyu da nga leen di rey jinax soo koy rey même chose yooyu boo leen di rey daa am noo leen di rey rey ak rend yu di benn rend nag bu ñu ko waxee mooy dagg baat dagg boli ak ñaari sidit al wajjayni muy ñaari sidit yi nekk fii parce que sharia daf ñoo jàngal sunu ñëwee da ngay gis kuy rey baat bi rek lay dagg ba daggee baat bi ginaar gi lem wala kanaara gi su paree tiggiwaat lu tax mooy deewul mu ngi nooyi ba léegi parce que am na ñaari sidit yu nekk fii côté gauche ak côté droite yooyu tànk daggul day am oxygène day nooy fii nag boo ko daggee air dina dugg ah dagg nga li muy lekkee ak li muy naanee mais li muy nooyee demagut mooy ñaari ñaari eh, sidit yi nekk fii nii loolu moo tax bàyyi xel moo tax alayhi salaatu salaam ni mu jàngalee rendi mooy paaka bi day dem ba sori yéeg ci kaw gauche nga dagg première sidit bi dagg boli bi dagg deuxième sidit bi mbir mi door a dee rendi noonu lañ koy defee da ngay gis ñëw rek ci digg bi lay teg rek dagg su ko defee affaire bi mën naa baat bi mën naa lemu mais fekk deewul moo tax ngay gis ku rey ginaar wala rey kanaara wala rey xar wala nag mu pare daa xëjëg parce que reyin bi baaxul ni mu ko reyee baaxul hmm? gis ngeen ko lu bëree bëri ku rey ginaar après ginaar gi jóg topp ko mu abal ko lu tax mooy ni mu ko reyee moo baaxul daa am nu ñuy reyee noonu la sharia jàngale nu ñuy reyee rey du làmbatu du ñëw rek am doole ak paaka bu ñëw rek teg non dañ koy jàng dafa am nu ñuy reyee wa inna allaha naka yàlla kataba dafa dafa obligé dafa santaane al ihsaana rafetal ala kulli shay ci lépp fa isa qataltum soo leen di rey fa ahsinul qitla na ngeen reyal na ngeen rafetal reyin bi da ngaa toog par exemple toog ci suuf di waxtaan jékki-jékki menentaal matt la léegi menentaal bi su la màttee am nga droit rey ko wala amoo droit rey ko am nga droit rey ko pour de la loraat yow pour mucc ci loram mais pour bañ mu loraat ñeneen ñi mais mental bi dalaa màtt nga ne ko xaaral dagg bopp bi dagg ndiggali dagg tànk yi jël xeer dëbb ko ne ko yow xaw ma kan waaye yow dootoo màtt loolu sharia da koy teere lu tax mooy rafetaloo rayin bi rafetaloo rayin bi rayin bi na rafet fa ahsinul qitla soo rey dara na nga rafetal ni nga koy reyee na ngay rafetal ni nga koy reyee dangaa ne si kër gi am benn jinax bu la sonal dugg ci livre yi di di di di ŋeeñ livre yi ah lu ne mu def ko di lekk sa xol tàng jeex nga ne xaaral jinax jinax bi danaa ko piège jàpp jinax bi fekk mi ngi dee dund mi ngi dund deewul teg benn kol kol bi téye ko par exemple ah su ko su ko kol bi jàppee nga yem ci yow nga yem ci ne kol bi téye na ko jinax baa ngi tëb tëbi jël ko yóbbu ko nga rey ko. mais bu ko fa bàyyi na bàyyil foofu rek ba 24 heures yi mat jinax bi nekk fa di souffrir du lekk du naan ah di pët pëti souffrir ba dee déedéet fa ahsinul qitla beneen bi mooy nga jàpp jinax bi daal di koy takk fenn ne da nga koy da nga koy da nga koy pendre jël buum takk takk tànk yi tànk ginnaaw yi takk kant jël sa yar di dóor ah pendre jàpp di dóor loolu vraiment yëfu sauvage la yëfu soxor la sauvagerie la islam dañuy tere loolu waa ji jàpp benn muus rek yeew ko joxul muus bi mu lekk joxul muus bi naan laa hiya atamaha wala saqaaha lan la yonente bi alei salaam mu ne fa adxalahu llahu naar yàlla dugal ko safara ci benn muus bu mu téye di mbugal muus mi benn waa yàlla dugal ko àjjana ci xaj boo xam ni mar la def rek mu jox ko mu naan te moom taxawaalukat la woon li muy tekki mooy sunu diine dafa nekk diine ju rafet moo tax des fois da ngay gis yu yéemu gars yi jël di ko yéemu filmer ay image filmer ay image par exemple ci ci ci ci ci ci ci Suède wone ay kanaara yuy jàll ah ay kanaara yuy jàll oto yi taxaw def stop may kanaara yi ñu jàll kanaara yi jàll ba jeex oto yi door a door a continuer seen circulation wër ko di ko di ko wërale naan ñii ñii buñ demul àjjana dina ma jaaxal fu ñu demee àjjana te ñu nekk ay ñu nekk ay yéeféer gëmuñu yàlla àjjana moom pour nga dugg fa da ngay gëm yàlla gëm yonent bi gëm lislaam gëm alxuraan gëm bés pénc gëm ndogal lu baax loo mënti def te teguwul ci lislaam fa lan yuqbala min wa fil axirati min alxaasirin kooku du suñu wax yàlla ko wax kon yow li baax li ngay def dafa ko ci diine beneen bi seetlu diine motivé wu la lan la ay affaire humaniste ngay wax ngay woote woo ay affaire environnement moo tax ma koy def ak humaniste kon yàlla taxut léegi yàlla lu mu taxut du ko jël hmm? Samba naam moment bi ngay xam ni yow yaa ngi protéger ay ay animaux ay kanara ki muusa ki ginaar moment boobu yaa ngi yaa ngi dóor ay bombe atomique yaa ngi dóor ay ay ay missile tomahawk ci ay dëkk musulman ki dëkk jàmbur c'est tellement contradictoire moment boobu yaa ngi wane mbaax ci facette bi yaa ngi ñëw di di puiser ay ressources naturelles ak richesse ay dëkk yaa ngi créer ay coup d'état ci ay dëkku jàmbur ah yaa ngi créer ay coup d'état dëkk jàmbur ñu ne déet yaa ngi créer ay virus ay virus sànni ko ci nature bi ay millions doomu aadama ji dee pour say industrie pharmaceutique produit yi garab yi nga xam ne moom lañ defar mën a jar dans le monde say filiale ak say firme firme industrielle yi mën a am xaalis xaalis mën a dugg ci li nga xam ne mooy sa mooy sa kees sa économie mën a relancer waat grâce ak ay virus yooyu defar defar antivirus wala ay virus yooyu sànni mu nekk ay maladie nga defar ay vaccin yi koy yi koy faj médecins yi ñu bañ maa mere mais c'est la réalité kon rafetal leen même rayin bi na ngeen na rafet mbokk yi xool leen ñu bëri tey bu ñuy rey rayin bi est-ce que rafet na léegi suñu diine nañu sooy rey rayin bi na rafet yow julit bi amaana jàngoo ko wala xamaluñ la ko nga gis benn tubaab buy rey rayin bi rafet nga ne non ñii vraiment jaaxal nañu ma alors que yow sa diine la jàngal na la ko moo la ko njëkk a jàngal yow est-ce que yow yaa am problème quelque part yow yaa jaaxal nit ñi di yow sa diine jàngale lii keneen di ko def ngay yéemu te mi ngi ci sa diine yow yow yaay ki ignoré li nga xam ne moom la la sa diine sant yi baax vertu yu nekk sa religion yow yaa ko réer yow yaa ko ignoré mais soo xamoon ne lii waroo yéemu ci tubaab bu koy def wala yéeféer bu koy def parce que sa religion daf la ko ordonné déjà daf la ko digal mais musulman yi xamuñu ko wala xam nañu ko mais pratiqué wuñ ko loolu warul warulaa yéem ci boo gisee ab yéeféer di ko def lu tax mooy amaana sax ci sa diine la ko jëlee parce que sa diine sa diine moo ko jàngale sa diine moom moo ko jàngale mu ne wa isa zabaxtum su ngeen di rendi fa ahsinu zabha na ngeen rafetal rendin gi sooy rendi xar ngay rendi béy ginaar lépp loo xam dañ koy lekk di ko rendi rend bi na rafet dégg nga lim ci teg wal yu xidda na ñawal na ñawal ahadukum kenn ci yéen shafratahu mooy paaka bi muy reye arme bi muy reye paaka bi muy reye na ko ñawal ba mu ñaw lu tax parce que rey mi daa war a rafet waroo ñëw teg dagg tuuti affaire bi kiyul nga ne noo téye leen moo ñëwaat dem daasaat affaire bu ñëw nga daggaat tuuti affaire bi sottiwul nga ne non dafa desee ñëw xaaral mu ñëwaat te yow animaux bi di souffrir wala animal bi di souffrir loolu baaxul loolu l'islam da koy teeru ndax mooy da ngay méttital li ngay rey te bëriwaane koo xam ne day ñëw rek jël paaka teg affaire bi du dem mu fekk commencé na dagg dara lim dagg di sonn di souffrir mu demaat di defaraat alors que soo tegoon dagg benn yoon jeex na moo tax reyin bi na rafet rendi gi aussi rendin gi na rafet moo tax mu ne wal yu xidda na ñawal ahadukum kenn ci yéen shafratahu am na xira shufratahu mooy li nga xam ne mooy paaka bi muy reyee lu tax fal yurex na daal di noppal zabihatahu li muy rendi li muy rendi nga li ngay rendi nga noppal ko du am souffrance animal bi du souffrir loolu lu mat a bàyyi xel day bëri waane koo xam ne li muy rendi day souffrir bokk na ci mooy day ñëw takk tànk yi teg ko ci naaj bi taxaw fële di waxtaan wuy téléphone surfer whatsapp nekk ci facebook bi commenté après ñëw ba tiim ko am téléphone bi sonné waat wala am lu kiyaat fekk affaire bi mi ngi ko takk ba mu dëgër bàyyi ko ci naaj bi muy souffrir loolu du yëfu nit du yëfu jullit te bëriwaanu ko koy def takk affaire bi bàyyi ko fa muy souffrir loolu loolu moom la yonente bi alayhi salaam tere ci xadis mbokk yi diina ju lay digal borom xam-xam yi bal borom xam-xam yi dem nañ ba àgg ci rafetal ci wàllu rendi ñu ne boo amee ñaari xar yooy rey wala ñett ñaari xay xar yooy rey wala ñett même paaka bi bu ko daas seen kanam demal daas ko feneen nëbb xoolal yërmaande googu boo ñëwee boo reyee benn bi benn bi soo ko reyee ba pare fi nga ko reyee jëlee ko fa nga yóbbu nga nga nëbb ko beneen bi nga war a indi su fekkee si même place nga koy reyee bu mu fa fekkee beneen bi boo demee ci sarr xadis da ngay fekk borom xam di ko wax puus puusale ko fa nga yóbbu ko lu tax moom xar bi ngay rey xar bi xar bi day gis day xam di du du xeer du xeer du du du portable du caméra daa am xel bu ñëw gis beneen xar bi danaan man man kon fii laa jëm danaan fii laa jëm sharia na la pour rek pour rek bu bul offensé animal waaw ku lay wax bul offensé animal dina wax nga offensé nit dina bu lay wax animal sax bu ko offensé ah dina la wax nga offensé nit nga jël ko déplacé ko moom nga indi ko tëral ko fa daal di rey loolu mbokk yi ah ku mën a wër lu rafetee nii fekk ko feneen fu dul ci lislaam dina jafe dina jafe xadis bi kon li muy jàngale mooy diine lislaam diina ju rafet la dafay sant li ñuy tuddee rey li ngay rey bu ko tamsil tamsil mooy jàpp daggate xottate ah ainsi de suite wala nga mbugal loo war a rey fekk mi ngi dund jàpp di dóor wala takk bañ koo jox mu lekk wala bañ koo jox mu naan muy souffrir ainsi de suite dañ koy éviter beneen bi li ngay rendi aussi rendi gi na rafet mooy arme bi ngay reyee nag na ñaw rey bi na gaaw rey bi na gaaw ba pare bu ko takk lu yàgg bàyyi ko fa muy souffrir nga ñëw door koo rey diine bu lay jàngal nga rafetal jëme ci ab animal ah doomu aadama nit taxul ñuy wax alxadisu sadis wal ishrun vingt sixième xadis muy attaawun attaawun mooy solidarité mooy dimbalante dimbalante lislaam diinay solidarité la diinay dimbalante la diinay dimbalante diinay jàppalante diinay assistance taxaw sa mbokku jullit assister ko assistance morale mentale ak assistance physique nit ki da nga koy taxaw su aajowoo xalaat aajowoo conseil aajowoo ku ko assister ci wàllu xel nga assister ko dafa aajowoo assistance physique daa am foo war a ànd ak moom pour ay affaire am sotti te moom mënu koo lijjanti nga ànd ak moom dafa soxla nga jàppale ko financièrement nga jàppale ko lii moo doon cosaan ci wàllu jullit ñi mais dimbalante bi bi mu nekk cosaan dëgg mooy bi fi droiture nekkee droiture bi nit ñi jubee nit ñi bi nga xamee ne njub mi ngi foo nit ñi dañoo jub mais monde bi ñuy dund nii dafa nekk monde boo xam ne bu bëri ay rëmu ak monde bu xaw a fulu tappale yi dañoo bëri naxaate yi bëri triandisme bi bëri wax lu dul dëgg bëri wone lu dul noonu bëri ay faux type bëri association de malfaiteur bëri nit ñi dañuy ànd di naxaate di tappale gis koo xam ni xaalisam bi mu am yépp da koo batiir ci ta tappale ak naxaate kër gi mu am ci tappale ak naxaate la ko tabaxee oto bi muy dawal ci tappale ak naxaate ci la ko amee voyage bi mu dem nekk nekk homme d'affaires di voyage dem di dikk ah nit ñi di ko ci ñee ci tappale ak naxaate ci la ko amee ñu ne déet nga gis koo xam ne sax diplôme am diplôme am ci tappale ak naxaate ci la ko amee réew mi gis ngeen fi lu ne gis ngeen fi faux médecin faux policier faux gendarme faux oustaz sax am na tout tout est faux maintenant lépp faux te c'est la réalité faux journaliste ah faux chauffeur lu ne am na faux faux vendeur sa am na léegi boo fekkee dañuy dund ci jamono ju dem noonu nga xam ne ay faux type dañoo bëri ay naxaatekat dañoo bëri ah dimbalante bi ni mu waroon a demee day wàññeeku lu tax mooy léeg-léeg nit wone ne dañ ko war a dimbali nit ñi dem ba ci biir gis ne kii day naxaate dem ba ci biir gis ne kii day naxaate. ñun yaakaar naa 2018 su ma jëm 2018 suñ jàkka ji fële Soprim am na situation bu doy waar bu fa am benn waaye dafa ñëw ne taxaw ñu julli ba pare mu taxaw di jooy jooy jooy doy waar ci jàkka ji lan la mu ne doomam dafa feebar doom ji ban feebar la feebar mu ne feebar bu raar bu doy waar commencé jooyaat jooy bay waaj a daanu gaa yi téye ah doom ji ban feebar la am bu commencé bëgg a wax feebar bi jooy affaire bi daw yaram ah ne kii nag feebar bi moom xëy na feebar bu bizarre mu ne moom musul gis feebar bi musu ko dégg c'est la première fois yàlla nattu ko ci lan la mu ne doomam moo juddu nekk liir ba pare amul bën-bën ci suuf munul dem àll dafa laaj opération opération bi temps la ci xaalis nit ñi ñëpp ñàkkatooy xep ñi seen yaram daw ñi seen bët yi commencé taa. xoolal dóor boobu sama doom dafa judd nekk liir waaye yàlla dafa def amul amul bën bën ci suuf mënul cabinet mënul dem àll gars yi ne nañ foog ñu defal ko opération bënn ko waaw loolu kuñ ko wax ne dafa aaje woon ndimbal nooy def ñi commencé làmb am gars yu commencé bind sec ñu dajale ba xaalis bi macha allah ci ci ci ci ci un temps record gars yi dajale fa lu doy waar léegi am ci mbooloo mi ku am réflexe ne léegi balaa ñu koy jox xaalis bi nañ ne ko léegi dañuy dem dañuy dem kër ga gis xale bi bon comme fii ay imaam ak feek ay nangam ñu ñaanal ko déjà ñaanal ko yàlla ñaanal ko léem ko aussi après su demee yàlla mën naa yombal opération bi sax ba affaire yi du am mais il a suffi que mot boobu ñu prononcé ko waa ji changé visage à 200 degré visage bi changé crispé wu complètement na teg commencé xanaa dimbal bi nekkatul nekkul yàlla rek taxatul nag léegi xanaa dimbali woon rek te yàlla tax et puis affaire bi dama cee bëgg sutura parce que su ngeen defee délégation ñëw kër ga waa koñ bi kenn xamagul lu xew koñ te moom dëkkul dëkkul suñu cité yi de dëkkul sa kuréel de mu ngi dëkk parcelle ca kaw beneen côté jóge foofu ñëw ba fii ñu ne ko nañ dem rek bu ñu demee waa koñ bi mënuñoo xam bu gaa yi duggee ci biir kër gi waa koñ bi mënuñoo xam lu fi xew mbooloo mu ànd rek dugg sa biir kër loolu waa koñ bi mënuñu ci xam sa doom dafa feebar ak du ko jot mu ne moom daal affaire bi daa bëggoon mu nekk sutura te vraiment mbooloo mi ñëw fa délégation bi dëkkandoo mi tel tel tel wax a wax a wax a wax ñu ne ko ah condition bi nag gars yi nag condition bi daal mooy balaa ñu la jox xaalis bi mooy xale bi dañuy dem ba gis ko ñaanal ko nangam ak nangam mu ne dee commencé nag indi ay problème coow accusé xuloo ci ci ci ku ku waxoon daa bëgg ñu dimbali ko nañ la dimbali par la suite léegi ñu ne ko nag affaire bi dañoo dajale xaalis dafa sérieux lii su naree am léegi kon foog yoon am ci wàllu kon léegi. te ñun léegi dañuy dañuy xool chef de quartier ak comme moo fi nekkal quartier bi imam ratib ànd ah ñu xool peut-être sous préfet bi wala commissaire nag affaire bi gën ko dépassé nag mu ne waaw man damaa nekkoon ci situation rek ne ci ay jafe-jafe waaw mais wax dëgg yàlla ngeen baal ma àq te bañ maa toppee dara waaye sama doom feebarul demewul noonu waaye affaire njaboot moo ma téye mbokk yi xool leen réew moo xam ne nii la ñuy dundee léegi ñaata ngay ñëw ci jàkk benn waay yëkkati benn ordonnance benn ordonnance ordonnance boo xam ne yow boo ko xoolee ordonnance bi amul date ba amul date des fois nga xool ordonnance bi fekk ci deux mille deux mille dix neuf wala deux mille vingt et un deux mille dix neuf wala deux mille vingt et un fii rek fii rek jàkka ji fii rek am na fi ku fi ñëw di wax ay ay ay feebar yu bëri. génne ay affaire am teg ñu xool ordonnance fekk 2021 la donc dimbalante l'islam da koo santaane mais bi ni ñuy jub bi ni ñuy jub solidaire ak dimbalante dafa yomboon mais actuellement actuellement dafa doy waar parce que nit ñi dañuy dóor bay dóoree diine xam nga kuy dóor di dóor xanaa diine nga bàyyi ko fi ma di dóor ba jël diine ji di ko dóoree yow loolu mooy vraiment mooy alkaane nit. boo ñàkkee da ngay garder sa sago yàlla dalay nattu rek du dalay nattu day jeex mais da nga ciy garder sa sago bañ cee jubadi bañ cee triandé loolu bokk na te ñeneen ñenn ñi aussi dañoo vraiment dañoo tàmm laaj laaj gi dafa yomb bu ñëwee laaj nga jox leen mu ñëwaat laaj nga jox leen dañ koy def métier chaque fois ñu ñu def ko métier te nag nit ki nag mënoo chaque fois aussi ngay fii ku nekk am ngay besoin yoo xam ne am ngay soxla am nga demande sociale bu nekk sa wet am nga ay parents am nga ay famille yoo xam ni. kenn ku nekk dafa soxla nga jàppale loolu moo tax ah jàppale lu lislaam santaane la mais lislaam da ko organiser aussi du anarchie beneen bi aussi mooy tappale yi am ak naxaate yi tax na ñu bëree bëri bëggatuñ bëggatuñ bëggatuñ bëggatuñ bëggatuñ dimbali da ngay romb nit muy muy muy muy yalwaan toog ne ne ne ne ne ne handicapé la toog ci fauteuil roulant fekk daa jël tànk yi takk takk ko ak morso wala ak buum tànk yi lemu nga gis koo xam ne day jël loxo bi loxo bi kole ko ak escorte bu mag takk nii jël yë mbubbu yére bi muy lang jël mbubbu yére bi muy lang ñun waxuma la kuy dóoraate di dóoraate bu dóoraate ci biir kaaba gi kaaba gi makka kaaba gi ngay fekk cajee yi les cajee cajee yeeg somalien yeeg érythréen yi dëkk yooyu nga gis leen ñoom dañ faa bëri di fa yalwaat bon léegi sax ak organisation yi bees yi am dañ leen dégagé foofu dañ doon nekk benn rue rue bi gën a siiw makka mooy Chari Mansour rii bi mooy rii bi gën a siiw màkk ku nekk ku dëkk màkk wala ku mos a dem màkk xam nga laa rii Mansour saa rii Mansour fa lañ doon nekk di yelwaan mais dañuy ñëw ba sës ba agsi ci kaaba gi gaa dañ faa jàpp ay nit ñoo xam ni kéemaan la jàpp nañ fa jàpp góor goo xam ni jilbaab la def ji yaakaar naa du ko defati jilbaab la def mel ni jigéen di yelwaan ci buntu kii bi te boo ñëwee mu laakale arab sama jëkkër dafa gaañu nangam ak nangam xale yi nangam wax a wax ay kenn xamul dafa doy waar nit ñi ni ñuy dóoree dafa doy waar moo tax da nga bëgg a dimbali nit mais léegi pour nga dimbali nit da ngay da ngay laaj ay renseignement ba mujj gi nit ñi dañ naan la ah yow xanaa affaire bi dimbali woo te yàlla tax nag fekk na yow da ngaa bëgg a dimbali mais da ngaa bëgg lu leer aussi li ngay dimbali nga ko bëgg a teg ci ay ci nga ko bëgg a teg ci lu leer ci source yu leer parce que ñiy sàkku ndimbal danoo bëri mais est ce que ñiy sàkku ndimbal yëpp wax nañ dëgg est ce que ñiy sàkku ndimbal yëpp war nañ leen a dimbali mérito nañ ko wax ji foofu la nekk moo tax euh, dimbali lu baax la mais nag nit ki aussi na leer lu ba xam li muy dimbali fi mu koy yóbbu leer na ne dem na d' accord su fekkoon da ngaa jox waaje rek te defooy enquête ak dara te yow sa yéene mat na sa yéene sell na di nga am tuyaaba bi la shakka fi dalik yàlla dina la fay sa dina la fay tuyaabay eh, ku dimbali mbokku julitam man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi al yawmi al qiyama comme ni muy ñëwee ci xadis bi si kanam di nga am yéene mais nag pour bañ a encouragé tappale ak pour bañ a bañ a ne bañ a am une naïveté ah bañ a nekk nit ku naïf ku ñëw rek jaar sa kaw yóbbu loolu la lislaam di bañ aussi julit dafay dafay nekk ku muus dafay nekk aussi koo xam ne ku ñor la loolu moo tax dimbalante baax mais dimbalante dañ koy organiser mu ne an abi Moussa abi Moussa al ashari radiyallahu anhu bokk ci saxaaba yu mag yi dàqoon na jàng alquran wala du dàq jàng Abdullah bin Mas'ud moo dàqoon a jàng waaye moom moo gënoon a neex alquran alayhi salaam da ko doon wax ne laqad uutita mizmaran min mazamiri ala daawud yow yàlla daf laa jox benn neexaayu baat bu mel ni daawu baatu baatu daawud yonent yàlla daawud da doon jàng picc yi di ñëw picc yi di ñëw animaux yëpp ñëw wër ko ndax neexaayu baatam ndax neexaayu ndax neexaayu baatam yonent yàlla daawud bu nekkoon toog fi mu toog di way di jàng picc yi nekk ci àll beeg animaux yëpp dañuy daw ñëw waxuma la ak nit ñi ndax baatam la mu neexee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mës a romb abu musa al ashari këram muy jàng alquran mu jàdd ñëw bàyyi ko ba mu jàng ba pare mu ne ko giñ naa ci yàlla ne yow suñu borom dalaa jox li nga xam ne mooy neexaayu baat bu mel ni baatu yonent yàlla daawud alayhi salaam. abu musa moomu mi ngi faatoo Irak ci dëkk bu ñuy wax Kuufa ni ngeen ko xamee yonent bi alayhi salaam bi mu fi nekkee capitale islamique bi Médine la woon. Omar ñëw mu des Médine Abubakar ñëw mu nekk Médine Omar noonu Ousmane noonu mais Ali toog quelques mois Médine début xilaafaam mais par la suite waa Irak nga xam ne ñoo fexe ba Ali toxal capital bi yóbbu ko yóbbu ko Kuufa ñoom ñoo ko fa woo di ko woo ba Ali dem toxal ko fa. moo tax même bi fi Ali jógee ñoo continuer di wax doomam Hussein kaa ñu jaayante ak yow ci kaw nga nekk xalifa ci kaw banu umayya ba loolu moo indi ñu ray xuseyn karbala ali bi mu demee kuufa abu musa al ashari mii dafa àndoon ak moom nekk fa ba cool bi amee digganteem ak muawiya ali ali ibn abi taal doon hésité kan lay tànn diggante ibnu abbas abu saïd ak abu musa mujj gi abu musa al ashari mii la tànnoon abu musa mii la tànnoon abu musa mii moom la tànnoon xam ngeen aussi abu musa li siiw mooy booy jàng xadisu Muaz ibnu Jabal lamma baasu nabi sallallahu alayhi wa sallam ilal yaman boo yemee ci zaahirul xadis boobu da ngay jàpp ne yonent bi Muaz rek la yónni mais Muaz mook Abu Moussa mi ñoo àndoon parce que Abu Moussa cosaanam Yemen la moom waa Yemen la Yemen la dëkk fa la jóge moo tax yonent bi mu yónni Muaz da koo booleeg moom bi mu yónni Muaz ibnu Jabal da koo booleeg Abu Moussa al-Ashari Abu Moussa nekkoon na Yemen moo tax moom Yemen la nekk ba ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam génne àdduna yëgul ne sax yonent bi génn àdduna dafa am ay buur yu fa nekkoon mu woo leen ci lislaam ñu dugg ci lislaam ñu ne ko dañoo bëgg a dem Médine gis yonent bi Abu Moussa bi muy ñëw ci yoon wi la yëg ne yonent bi gaañu na am saxaaba yu mu dajeel ñu wax ko ko mu bañ ko wax buur yi mu àndal mu bañ leen koo wax mu noppi ba ñu leen Médine bañ gis Abu Bakar bi ñu agsee Médine buur yi mu àndaloon ci lañ door a yëg ne alayhi salaatu salaam génn na àdduna parce que Abu Moussa su leen ko waxoon amaa duñ amati motivation ñëw mu noppi tee xibaar bi bañ agsi ñoom ci lañ ci lañ gën a feddalee seen lislaam Abu Moussa al-Ashari soo koy dégg ñu ne la jànkat alxuraan rek da ngay jàpp ne fa la yem mais ci bu ñuy wax xeexkatu lislaam yi da ngay dégg Xaalid ibn Walid dégg Hamza dégg Ali ibn Abi Talib Charhabil ibn Hasana dégg Abu Ubayda Amir ibn Jarrah Saad ibn Abi Waqas mais ci ponkalu xeexkat yi la bokk Abu Musa al-Ashari ñu bàyyi ci xel ci ponkalu xeexkat yi la bokk tey dëkk yi nga xam ne dafa nekk lu ñu tuddee Asfahan mooy diggante Afghanistan Tajikistan Kazakhstan ba ba ba Russie ba Russie foofu yëpp conquête bi fa am ci jamono Omar ibn Khattab Abu Moussa moo ko def dëkk yooyu yëpp moom moo leen ubbi moo daaneel moo daaneel Perse yi aussi xeex bi daaneel Perse yi participation bi ci ëpp solo Abu Moussa al-Ash'ari mi moom moo ko def. parce que moom Yémen la dëkk te Yémen dëkku xeex la Yémen dëkku xeex la ku leen xam-xam ne dëkku xeex la Yémen ba léegi nii dëkku xeex la nit ñi dañ koo tàmm Yémen yi di ngay gis ci arab yi kuy dox da nga yor a jaasi wala paaka wala ngay doxantoo fetal loolu ñoom seen seen seen dëkk c'est très normal même cheikh yi bu ñu jàngale cheikh muqbil rahimahullah su doon jàngale am ku taxaw fii am ku taxaw fii ki yor jaasi ki yor fetal moom ci boppam mu teg fetalam ndongo yu jàng si teg seen fetal waaw dëkk boobu noonu la bindoo dëkk boobu noonu la bindoo moo tax boo jàngee seen histoire kii ci jamonoy ceddo dëkk yi naqaroon na naqari naqari woon a conquérir ah wala gañe leen ci xeex yemen ci la bokk parce que ñi ci xeexkat lañ ba léegi nii da ngay gis ku ciy dox da ngay gis président wu yemen Salih al Salih président Salih bi gaañu te ñu rey da doon gis buy dox day paaka bi day nekk fii wala jaasi bi da koy yooyu ko wala paaka bi ne ci biir bu dee ni costume bi naawee nga gis paaka bi da koy rof ci biir daa am ceinture bu ñu takk ci ndigg li paaka bi ci lay nekk léegi seen borom xam yi ci bëree bëri bu ciy déplacé dox boo ko xoolee gis mu ànd ak mu ànd ak mu yor mu yor mu yor kii yam yor xanjar ñoom xanjar lañ koy wax yor li nga xam ne mooy seen seen xanjar mooy paaka bi. Abu Moussa dafa liggéey bu am solo dëkk yooyu yëpp nga tudd muy Ahwaz Ahwaz Lahore Asbahan te loolu mooy Afghanistan ak li ko wër dëkk yooyu yëpp moom moo leen conquérir moo fa dugal islam Abu Moussa al-Ashari radiyallahu anhu bokk na ci saxaaba yi nga xam ne ñoo mujjee faatu ci li nga xam ne. moom mooy ca kuufa mu jële ci yonente bi alayhi salatu salaam mu ne inna al mumina lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baadan wa shabbaka asaabiahu mu ne inna al mumina ki gëm yàlla lil mumin ak moromam bi gëm yàlla kal bunyaan dañuy mel ni miir dañuy mel ni miir comme miir la ñuy mel miir pour mu tabax lan mooy am yashuddu baaduhu baadan miir pour mu am dañuy tegalante noo birig dañuy tegalante léegi soo tegoon benn birig nga bëgg a tegaat beneen birig birig bi bañ a bañ bañ a bañ a bañ a nangu birig boo teg mu daanu birig boo teg mu tax mu daanu est-ce que di nga am bâtiment benn birig bi dafa nangoo supporter beneen birig bi nangoo supporter beneen birig bi nangoo beneen bi nangoo supporter ba nga am bâtiment mu ne julit ci mbokku julitam noonu lay mel yashuddu baaduhu baadan ah day day day jàppalanteeg beneen bi ñuy jàppalante ñuy jàppalante mu ne sab wa sabbaka asaabiahu sabbaka asaabiahu mooy dafa jël baaraam bi loxo baaraam yi dugal ko ci loxo baaraam yi daal di def nii ah nii jullit nii lay mel nii xam nga lii dafa dëgër jàppalante nañ dugalante nañ mais dafa dëgër mu ne jullit noonu la war a mel ci mbokku jullitam lu muy jàngale xadis bi mooy li ñu waxoon sànq mooy taawun gi mooy jàppalante dimbalante assistance physique assistance morale solidarité ci lépp loo xam ne jullit bi war na koo mën a jëriñ mbokku jullitam mu daal di koy def fekk ginnaaw bi mu leer na ba mu leer na mbokku jullitam lii mu soxla nii dëgg la dafa aajoo ko ko jàppale gis koo xam ne soxlaam yépp li mu soxla mooy moom dafa aajoo ko ko jàppale mu jàng dafa aajoo ko ko jàpp mu jàng xam-xamu diine léeg-léeg dafa aajoo ko ko jàppale mu jàng xam-xamu aduna kii formation la bëgg ah kii lan la bëgg tukki la bëgg loola suñ ko ci mënee jàppale te mu tege ci dëgg ñu mën ko cee jàppale mu mën a jur njëriñ su boobaa dara nekk ñu daal ko ci jàppale kon jullit dafay taxaw mbokku jullitam te alquran daf ko digle wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan na ngeen dimbalante ci lépp loo xam ni dafay indi mbaax ak tuyaaba ngeen bañ a dimbalante ci lépp loo xam ni dafay indi bàkkaar ak noono saxaaba yi soo jàngoon bunt bi muy buntu taawun liñ ci def kéemtaan nga ciy gis kéemtaan nga ciy gis ci seen dund ci taxawu sa bokku jëlee dimbali ko ak bu soxlawee alayhi salaatu wasalaam ci moom la tàmbalee ci moom ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci moom la tàmbale ni daraan ñëw ne ko aw ma dara mu ne ko xaaral tuuti mu xaar benn waa indi dara mu ne ko jëlal indi tàndarma wala indi meew wala indi raisin mu ne ko jëlal nga yóbbu waa ji jël jaadu yóbbu da daan ñëw këram Aïcha nee na nit ñi dañ daan ñëw këram di ko laaj te lii rek lañ fi am tey lu ñu war a lekk alayhi salaatu salaam jox leen ko toog di xaar yàlla mais boobu li ma leen wax boobu droiture fi nekkoon de njub moo fi nekkoon nit ñi dañoo juboon ndax xamuñu woon tappale ki lay laaj dafa siree ci moom mais léegi ki lay laaj boo moytul moo la ëppale wala ki lay laaj laaj bi da koo tàmm daf ko métier mais nekkul dans le besoin soxlawul nekkul dans le besoin soxlawul boobu nit ñi dañoo sérieux woon dañoo juboon xamuñu woon tappale xamuñu woon naxaate mais léegi nit ñi dañuy dóor xam nga di dóor bay dóor ci biir jàkk loolu lu garaaw la ñoo ci biir jàkk présenté say ordonnance wax da ngaa feebar nangam dara du ci dëgg da ngaa amay arrière location dara du ci dëgg nit ñi dajalee la xaalis nga dem noosee ko waa ji dafa am ku ñëw seen jàkka ñëw seen jàkka ne dafa amee arrière ay location ñu koy dañ koy waaj a génne waa jàkka ji rafet ci moom njort ak ni ñu ko gisee ak melokaanam fekk heure julli tisbaar la li mu waxoon ne moom la amee arrière location loolu bëriwut bëriwul somme bu somme bu somme bu minime la ñu dajale daal di ko koy jox ndekete moom du ko def benn jàkk bu ñëwee jàkk bi xam nga somme bu ndaw lañ koy jox ci jàkk ji tàkkusaan mu dem beneen jàkk jox ko somme bu ndaw timis mu dem beneen jàkk parce que boo laajoo somme yu mag yi nit ñi dañuy dañ duñ sawar léegi journée bi moom day am journée bu subaa mu xëyaat am journée ginnaaw su mu xëyaat dem beneen koñ am journée koñ yi mu demoon du fa dem waaye ñu nee na ñu ñu ñu sarax ko ba pare jox ko li ñu koy jox mu dem waaye julli ci jàkka yi am fu mu jaar pare léegi ci boo jéggee tali bi sërëm moo fa yore benn restaurant di jaay moom mu jógee foofu jaar ci restaurant bi di nuyu sërëm gis waa ji commandé ceebam toog ñu koy servir mu xool ko waa ji sëgg mu xoolaat ko waa ji du mooy di xool boor yi la ne mu waaxu ñëw ba ci moom ne ko sëñ bi dama lay nuyu rek daa mel ni daa am fu ma la xàmmee mu ne ko waaw mën naa nekk rek waa bëree ak bi mu ne ko yow sànq ju jullee woo tisbaar suñu jàkka ji mu ne ko noonu déedéet jullee mu foofu mu ne ko waa baax nee na ma daal di koy bàyyi ci sutura bi daal di dem léeg-léeg nit ki ba doo ko topp ba mu sës aussi quoi doo ko topp ba mu sës su nitee su nitee bu dee nitee na nitee na dina xam ne waa ji am na lu mu koy junj te nag man satara musliman léeg-léeg parce que mbokku ji da nga koy jekku mais bu sàng ko sutura sàng ko sutura moo tax nit ñi jamono ji day waar lañ nekk ci wàllu ci wàllu buntu bi alxadis saabi wal ishrun muy xadisu vingt-septième an abdullah ibnu omar jëli ci abdullah ibnu omar mu ne anna rasulallahi na ko yonent yàlla bi salaa sallam qaala wax na al muslim julit axul muslim julit mooy mbokkam laa yaslimuhu du ko tooñ wala yuslimuhu ay laa yaxzuluhu du ko gàcceel du ko toroxal man kaana fi xaajati axihi képp ku nekk ci soxla mbokku julitam kaana allahu fi xaajatihi yàlla nekk ci soxlaam sa mbokku julit saa booy taxawoo ci soxlaam ni nga koy taxawoo pour soxla bi sotti ak di ko fajalee soxlaam yàlla noonu lay taxawoo pour soxla faju yàlla noonu lay taxawee pour sa soxla sotti man faraja an muslimin ku teggil tiis julit wa man faraja képp koo xam ne teggil na an muslimin ab julit kurbatan ab tiis faraja allahu anhu yàlla dina ko teggil kurbatan ab tiis min kurbaat yowmal qiyaama ci tiis yowmal qiyaam yi wa man satara musliman képp koo xam ne suturaal na mbokku julitam satarahu allahu yowmal qiyaama yàlla suturaal la yowmal qiyaam mbokk bi xadis bi njëriñ yu bëri ñoo ci nekk xool leen li mu wax al muslim julit axul muslim julit mooy mbokkam boo comprendre ñu ne julit sa mbokku julit mooy sa mbokku ah mbokk googu da nga koy téye. parce que mooy mbokk gi féete kaw mbokk yi te mbokkoo dafa am lu mu laaj mbokkoo mooy lu mu laaj mooy dañ koy defar kenn du ko yàq dañ koy solidifier dañ koy dëgëral dañ koy dëgëral doo ci xejal kenn mbokkoo day sérieux day sincère day dëggu amul naxaate amul triande amul wor amul tappale amul ñaari kanam mbokkoo loolu la laaj al uxuwa fi diin loolu laaj mooy asidqu wal ixlaas loolu laaj dafa laaj dëggu dafa laaj sellal dafa laaj dëggu dafa laaj sellal lan moo tax mu indi hadis bi mooy dañoo nekk ci bunt biñ jàll mooy taawun mooy solidarité dimbalante ah dimbalante lañ wax si lañ jógee solidarité léegi mu ñu indi hadis boo xam li muy wax mooy julit julit mooy mbokkam lan la bëgg a jàngale mooy diggante mbokku julit ak mbokku julitam taawun moo fa war a am mooy solidarité dimbalante taxawu sa mbokku julit dimbali ko ah nekk ci ay mbiram nekk ci ay yitteem jël yitteem def ko sa yitte jafe-jafeem nga def ko sa jafe-jafe naqaram nga def ko sa naqar. tiisam nga def ko sa tiis mbégteem nga def ko sa mbégte loolu la bëgg a jàngale loolu moo tax al muslim julit axul muslim julit ay mbokkam laa yaslimuhu ah comme sa mbokku julit la daa am luy defar diggante bi liy defar diggante bi lii la daa am luy yàq diggante bi li yàq diggante bi lii la lan mooy yàq diggante bi yii kon moytu ko laa yaslimuhu bu ko tooñ lu tax mooy ñaari nit suñu nekkee tooñ day yàq diggante bi su fekkee ñaar dañoo nekk saa boo xëyee kenn ki di la tooñ loo mën a muñ muñ muñ bis dina ñëw nga pétale plomb parce que muñ daa am fu mu yem ci ñu bëree bëri bokk muñ dafa am fu muy yem du ñëpp ñoo mën a support am na ñoo xam ne loo leen tooñ tooñ mën nañ la baal mais ñooñu dañ leen di wàññeek baaraam de man bokk ma ci te xam naa ne yéen ñu bëri ñi bokk leen ci ah muñ dafa am foo xam ne nit ki moom la mën a supporter ci ci ci ci façon tooñ gi nga koy tooñ am na tooñ yoo xam ne du tayeef nit ki mën na la ko baal mën na ko supporter mën na ko muñ te du mës a ubbi gémmiñam ne la yaa ngi may yaa ngi may yàqal parce que day xam ne lii da nga koy def sans intention jubluwoo ko amaana sa manquement moo tax nga koy nga nga ko ci nga ko ciy lor waaye jubluwoo ko amaana su la leeroon ne yaa ngi koy tooñ doo ko defati am na koo xam ne yàlla may na ko façon boobu mën na ko supporter mën na ko nangu mën na ko muñ mën na ko tolérer mën na ko digérer mais du ñëpp mais du ñëpp mais tooñ koo xam ne nag naa la dëkk ji tooñ nit ki chaque fois di ko tooñ kooku dafay xaw a doy waar moo tax mu ni laa yaslimuhu bokk na ci li koy yàq mooy tooñ kon fexeel bu ko tooñ bokk na ci li koy yàq mooy toroxal sa mbokku jullit toroxal ci wax wala toroxal ci jëf toroxal ci wax wala toroxal ci jëf loolu day yàq diggante sa mbokku jullit mais diggante sa mbokku jullit am na lu koy defar de lan moo koy defar bu man kaana fi xaajati axihi bu fekkee da ngaa taxaw da ngaa nekk ci sa aajowu mbokku jullit kaana laahu fi xaajati yàlla nekk ci sa aajo sa mbokku jullit saa bu amee aajo nga ñëw taxaw loolu day gën a rataxal diggante bi wala wala déet da koy rataxal day gën a day gën a defarat diggante bi day gën a yombal diggante bi dafay gën a indi communion seen diggante connexion bi dafay baax déggoo bi dafay baax entente dafay nekk ah entente dafay nekk moo tax mu ni wa man kaana fi xaajati axi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja képp koo xam ne teggi la an muslimin julit kurbatan ab tiis faraja allahu anhu kurba min kurbat yawmal qiyam yàlla teggi la tiis tiis gi mooy lan mooy sa mbokku julit dafa ñëw jaaxle tey par exemple amul lu mu dundee nga jox ko lu mu dundee tey amul paas bu mu dem nga jox ko paas amul lu mu jëndee ordonnance nga jox ko lu mu jëndee ordonnance dafa am tudd war a tudd doomam amul lu mu tuddee bopp bi tëjee nga daal di koy fexe jàppale ko wala boole ko ku ko jàppale ba mu mën a tudd ah loolu wax dëgg yàlla teggil gu ko tiis parce que loolu tiis la woon ci moom nga daal di ko koy teggil yàlla dina la teggil tiis yowmal qiyaam yow di nga am tiis boo xam ne yow it yowmal qiyaam da ngay ñëw mu nekk tiis bu rëy nga naan tiis bi lii de bu ma ci yàlla toppee tey ma dee suñu borom teggil la ko lu tax mu teggil la ko teggil bi nga teggiloon sa mbokku julit jaaxle gu mu jaaxle tiis gu ne woon ci moom nga dindil ko ko suñu borom teggil la tiis waaye man satara musliman lii ak am solo ku suturaal sa mbokku julit dañoo nekk jamono joo xam ne sutura dafa xaw a jeex jamonoy wee weerante jamonoy weerante loo xamal sa mbokku julit ci lu bon génnee ko loo xamal ci lu baax nëbbu ko mel ni waa ji amul lu baax waaye lu bon lépp nga weer ko te nit ñi fi gën a doyee waar pour wan la weer weeraata gi fu mu àgg mooy suñu lay weer duñ la desal dara dañ lay weer comme ni ñu koy waxee ba dañ lay weer xaw am na sax terme bu ñu utiliser dañ lay weer ba nga ba nga ne xaw ma nan ba nga wow koŋ ah waaw nga gis koo xam ni xaritam day am xarit xarit bi am xew mu yónnee ko tiisi bi ne ko tiisi bi maa la ko jox utiliser ko ci xew bi mu ñëw ci xew bi toog xarit bi sol yére bi di dem ak a dikk affaire bi naqari ko mu ne ko tiitër tiitëram bu bëri bi yëpp de pourtant yére bi maa ko ñawal maa ko maa ko jënd maa ko ñaw dërëmam demu ci waaw loolu du weer ah weeraate la am téléphone jox ko waa ji toog ci mbooloo mi gars yi naan ba bàyyi la yow ñëw ci kooku saa waay su téléphone bi rafet na de mu ne pourtant téléphone bi li muy rafet rafet yëpp de maa ko may dërëmam demu ci ak bëri ci nit ñi tey nag loolu lu mat a éviter la lu mat a éviter la lu tax mooy weeraate du jikko julit te tey nag julit ñi ñooy weeraate alors que weeraate du jikko julit wala jikko jikko bu salte la bu bon la parce que kii weeraate rek foo ko fekk dafa am benn rancune benn iñaan jëmale ci ki nga xam ne moom lay weer parce que koo bëgg doo ko weer koo sopp doo ko weer koo naw doo ko weer koo fan doo ko weer mais bu fekkee da nga am mbañeel ci nit ki jëmale ci moom ah da ngay exploiter mbañeel googu ci moindre occasion rek nga naa ko weer. ñun yàlla mi ngi suturaal yaa ngi def bàkkaar guddi yàlla suturaal la yaa ngi def bàkkaar bëccëg yàlla suturaal la inna allaha xayyun sittiir yàlla ku am kersa la xay xayi sittiir ku bëri sutura la comme ni ko alayhi salaatu salaam waxee ku bëri sutura la ku bëri sutura la sutura yàlla bëri sutura moo tax mu indil ñu guddi mu indil ñu guddi guddi parce que am na yoo xam ne amaana guddi ci la ci la gën a ëppee sutura ko ci bëccëg te loolu sàcc yi xam nañ ci dara sàcc yi guddi su amutoon am na ñoo xam dinañ am problème parce que guddi rek lañ mën a yéeg miiru jàmbur yi guddi rek lañ mën a dajji magasin jàmbur yi guddi rek lañ mën a dajji oto jàmbur yi guddi rek lañ mën a def li ñuy def vol de nuit kon sunu borom dafa bëri sutura ba indi guddi suturaal ñu ci guddi gi suturaal ñu ci guddi gi ni ngay nelawee guddi sax boo moytuwul mënoo ko nelawee bëccëg parce que booy nelaw bëccëg dina am loo bàyyi xel. guddi dafa ànd ak sutura dafa ànd ak sutura moo tax borom bi ne man satara musliman ku suturaal ab julit lan mooy fay bi yowmal qiyaam satarahu llahu yowmal qiyaama yàlla suturaal la yowmal qiyaam waaw li muy tekki mooy ku weer julit nag kon yàlla lay suturaal yowmal qiyaam ku weer julit yàlla suturaal la ku si weer julit yàlla weer la yowmal qiyaam comme ni mu ñëwee ci beneen xadis man fadaxa muminan fadaxahu llahu yowmal qiyaama ku fi weer julit yàlla weer la kon weeraate bëriwul njëriñ. parce que yow loo xamal nit ki ba di ko weer am na ku la xamal lu mel noonu te mën na ko mën na laa weer suñu borom mi nga xam ni moo la suturaal yàlla mën na laa weer te boo nekkee métier métier weeraate ñu weer la te réew mi dem nañ ba émission weeraate dafa am émission weeraate émission yoo xam ne lañ fay wax lépp mooy weer ay nit ah diw moo wax nangam moo ko wax audio baa ngi nii tegal ñu déglu waaw diw li mu wax fi garaaw na de vidéo bi sax mi ngi nii am ñoo xam ne seen compte TikTok tey wala seen compte Instagram wala YouTube weer ay nit la yor ay vidéo jaambur yoo xam ne nit ki même bu fekkee def na lu bon daf ko def en cachette daf ko def secrètement ah yow nga fexe ba atteindre am ci am ci ah ba fexe ba am ci accès teg ko ci compte YouTube bi ne xool leen diw li la doon def te di bi ko doon def wane wu ko yow li nga def nag yow anam yow li nga def anam sa bés dina ñëw compte yooyu yëpp li tax muy am ay vues ay 1000 vues ak 2000 vues ak 1 million vues mooy weer ay weer ay nit la weer fa seeni wax wala weer fa seeni jëf mbokk yi loolu musiba te loolu réalité bu ñuy dund te am na ñu ñoo xam ne tey saa bu ñu xëyee seen yitte yëpp mooy xool tey kan moo weeru kan moo weeru fu ñu koy xamee am na compte bu ñuy dem pour xool ku weeru waaw loolu jullit loolu war naa nekk sa yitte xëy di xool di di di wuññi ay suturay jàmbur kan moo weeru tey soo ko gisee yaa koy njëkk a partagé di weeru na tey de gis ngeen mbiram tey audio am yaa ngi nii gis ngeen mbiram vidéo am yaa ngi nii gis ngeen mbiram photo am yaa ngi nii loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel bis boo koy def jàppale sa bés mën naa ñëw sa bés mën naa ñëw te bu ñëwee mën naa métti mën naa métti moo tax jullit dafay suturaal bokk jullitam dafay suturaal bokk jullitam te nit ñi léegi sutura dafa xaw a wàññeeku lu tax mooy seen bopp sax nit ñi suturaaluñ sax seen bopp li gën a reetaanlu mooy nit ñi suturaaluñ seen bopp dañu ko xam day dem marché téléphone bi maa ngi nii dem marché tey tey maa dem marché tey mu àgg tey sama ceebu nàngam bi moom laay ndugg mi ngi nii gis ngeen sama légumes yi légumes yu fere laa am ñu ne déet mu ñëw ci ndawal li ndawal li gis ngeen tey nangam laa peese lu ci suñ yoon du fa yem bu àggee sama cin bi gis ngeen dama koo bomb tey ba mu weex mi ngi nes na si du fa yem façon diw bii laa toggee yow sa bopp doo suturaal sa bopp ngir yàlla léegi yow bala ngaa yekk bala ngaa yekk nit ñi lekk sa añ bala ngaa yekk nit ñi lekk nañ añ bi ba pare yow da ngay toog di la fekk nit ñi lekk nañ ko ba pare nit ñi ñoo la jiitu ci añ bi parce que yow wax nga lépp xorom beeg nangam beeg bouillon bi yeeg lépp wax nga ko yow bala ngaa yekk nit ñi lekk nañ añ bi nit ñi lekk nañ añ bi nga gis koo xam ni bu jógee fii di dem France voyage parce que am na prescription war a jàngi commencé aéroport wala ci agence ba lay commencé jot naa sama billet visa bi génn photo passeport bi posté léegi bët yeeg làmmi yépp di wax yoonu aéroport maa ngi nii yoonu aéroport dans trente minutes on va décoller dugg ci avion bi avion bi nga commencé filmer escalier yi ba àgg ci biir fauteuil bi sa siège bi ngay toog sax maa ngi nii 4C laa teg wala 5 5B teg dugal bagage yi nga wane fi ngay dugalee bagage yi takk sa ceinture même ndékki bi ñu lay servir nga posté ko ah mbokk yi nit ñi suturaaluñ seen bopp waxuma laa keneen suturaaluñ seen bopp waxuma laa keneen nit ñi dañu ko am day nekk sax salle d'examen di filmer boppam salle d'examen nga filmer sa bopp ñu ne déet dem nañ dem ba tey da ngay nekk biir biir màkka di aj màkka maa ngi arafaat laal naa kaaba gi ah pour kan la pour ñun la wala pour yàlla la ngay ngay defal ah sànni naa jamra daw naa safa ak marwa ah maa ngi maqaamu ibrahim lu ne nga daal di koy nga daal di koy poste daal di koy film mooy yow sa bopp xam nga kuy def loolu koo xam ne yow sa moindre détail yi nga am yëpp da nga ko exposé wane ko boo amee détail yu nit noo koy def da nga koy denc da nga koy garder yow say détail garder woo ci dara ku garder wul dara say détail détail yu nit noo koy garder. boo koy am di ko sant boo koy am di ko posté di ko divulgué te loolu c'est à éviter moo tax julit dafay suturaal boppam waaye dafay suturaal mbokku julitam alxadisu saamin wal ashrun muy xadis 28 al isaar al isaar al isaar mooy nga xañ sa bopp nga xañ sa bopp pour ñeneen wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñi nga xam ni ñoom dañuy xañ seen bopp jox ñeneen donte ñoo gën a nekk dans le besoin des fois nga nekk dans le besoin soxla benn affaire benn waaye nga ne pourtant lii dama ci am soxla nga ne ko jëlal te pourtant yow soxla nga ko loolu mooy ithaar loolu aussi xuluqun rafi jikko bu kawe la ci lislaam aussi nit ku amul grandeur nit ku xeebu munoo ko nit ku koo gis mu koy def aussi nit ku baax dëgg moo koy def comme ni ko alxasan al basri waxee alxasan al basri nee na xuluqul isaar muy jikko bii nii mu ne ku iñaan munu ko ku soxor munu ko ku siis munu ko ku séeneen mënu ko ku bëggee mënu ko ku nay mënu ko ku nay du ko mën ku ku ku ku ku bëgge du ko mën ku séeneen du ko mën ku soxor ku iñaan mënu ko parce que jikko yooyu dañoo am contradiction ak bii foog nga set ci soxor so so- set ci iñaan sot ci bëgge set ci li nga xam ne mooy séeneen ah set ci nay pour mën a am xuluxul isaar parce que ku nay pour mu jox la dara lu nga xam ne moo la gën a bëgg même li mu bëggul sax pour mu jox la ko difficilement la waxuma la ak li mu bëgg parce que moom dafa nay dafa nayee nay ba affaire bi yàqu affaire bi nekk ba yàqu moo ko gënal mu jox la ko yow affaire bi mën na fay nekk saa boo ñëwee sama affaire mën na la non non dama ko soxla de dama date bee jotagul rek dama si jubloogul affaire bi mën na faa nekk di toote di yàqu gunóor yeeg affaire yëpp ne ci mu leer ko ne mu leeral ne kii soxlawu ko mais saa boo ñëwee mu teg benn prétexte lu tax mooy nay gi fi nekk mooy tere beneen bi iñaan na la koo jox beneen bi da cee séeneen beneen bi yéenewu la ko mais kii am isaar déedéet moom mën naa ñëw nga soxla dara léegi léegi moom mu bëgg ko mu yëg ne am nga ci soxla euh, soxla na ko lool waaye moom am na yombalu mën na la koo bàyyi amaat ko nga ne ko jox ma ko mu daal di la koy jox ah loolu xuluxul isaar la waxuma nag ma pare fii rek benn waay fekk benn waay ne ko sa portable bi laa soxla jox ma ko waxuma loolu de du noonu parce que gars yi des fois da ngay wax dara ñu dem ñu dem di ko di ko tester de- di bëgg cee def stage ba pare mu ne abi hurayra jël nañ ci abu hurayra waxoon nañ ko abdurahman ibnu saxr addawsi qaala nee na jaa a dikk na rajulun benn waay ila nabi ci yonent yàlla bi salaa sallam fa qaala mu ne yaa rasulallah yonent yàlla ay sadaqati ban sarax azamu moo gën a màgg ajran tuyaaba ban sarax moo gën a bëri tuyaaba façon laaj bi aussi li ñu ko laaj yonent bi ci ay xadis ak a bëri mais chaque fois réponse yi du nekk même réponse réponse yi diversifiée lay nekk lu tax mooy kenn ku nekk day xool yow li nga laaj mu xool yow li gën a dëppoog yow li nga soxla mu jox la ko benn waay laaj na ko tuyaaba bu gën a rëy mu tontu ko leneen beneen waay laaj ko mu tontu ko leneen kii laaj ko mu tontu ko lii mu ne ko tuyaaba bi gën a rëy ci wàllu sarax am na ko xam bi mu ko ko waxee lan la ko wax daf ko ne nga daal di defal nit ñi ndox muñ naan gasal leen teen bu ñu bu ñu naan kooku ci tuyaaba yi gën a rëy la bokk wala warasa musafan nga bàyyi leen fi téere alxuraan bu ñu jàngee ci tuyaaba yu rëy yi gën a yi bokk wala nga wutal leen yoon bu ñu jaar te amuñu woon yoon bu ñu jaar ci tuyaaba yu rëy yi tuyaaba yi nga xam ne ci wàllu sarax yi gën a rëy ci la bokk loolu alayhi salaatu salaam wax na ko waaw xaala mu ni anta saddaqa mu ne nga saraxe wa anta saxee te moment bi ngay saraxe yaa ngi wér parce que am na koo xam ne balaa muy saraxe day bàyyi ba feebar moom boo ko gisee muy saraxe rek daa feebar su feebaree commencé juróom-ñaari mbiskit juróom-ñaari doomu guro juróom-ñaari nen juróom-ñaari sondel juróom-ñaari puso juróom-ñaari paquetu lañset ah tegale ay juróom-ñaar juróom-ñaar su paree ci juróom-ñaari fukk ak benn fukk ak ñett fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ak benn parce que chiffre yooyu aussi du hasard gars yi dañ koy joxe parce que chiffre ciblé la dañ ko ciblé daa am lu ci nekk comme ñoom ni ñu koy waxee dafa am baatin dafa am mbóot anta saddaqa mooy nga saraxe wa anta saxiix te yaa ngi wér ah saxiixun saxiixun mooy fekk aussi yaa ngi nay yaa ngi nay ci li ngay saraxe lan mooy yaa ngi nay mooy sa bakkat mi ngi ko bëgg ba nga xaw cee nay ba bëggoo koo saraxe parce que am na loo xam ne boo ci nayul mooy soxlawoo ku ñëw nga ne ko ah sa waay jëlal yaa lii dafa yàqu rek jëlal mooy yow nayoo ci nayoo ci soxlawoo ko sax mais li nga xam ne moom xaw nga cee nay pour nga saraxe ko da ngay xoolaat noo koy saraxe nga saraxe loolu taxshal faqra sarax boo xam ne booy saraxe da ngay ragal da ngay ragal ñàkk da ngay joxe ba mel ni ku ragal ñàkk da ngay saraxe ba naan hii waa ji moom mi ngi sarax kii mbaa du jeexal taxshal faqra yemoo fa wa taamulul ghina waaye toujours looy saraxe lu mu bëri bëri ba nga ragal na yaa ngi ñàkk yaa ngi rafet njortu ne dina maanaam euh, day yokk parce que saraxe bi du ko wàññi day gën a yokk koom gi dafi gën a nekk wala tumhil doo bàyyi di seetaan hatta isa balagatil xulquum ba nga commencé sukuraat mooy ruugi ruugi mi ngi génn ci yaram bi ba ñëw ci put bi mooy yaa ngi sukuraat qulta nga ne li fulaan kaza joxal leen ma diw lii wa li fulaan kaza joxal leen ma diw lii wa qad kaada li fulaan te fulaan diw moomu amoon na soxla joxoo ko mais nga bàyyi bay sukuraat commencé gaaw séddale alal ji commencé gaaw saraxe te mosoo saraxe des fois nit ki da koy def ngir ñaari mbir mu am koo xam ne buy feebaree day yaakaar ne ci lay dee mu commencé gaaw saraxe pour yaakaar ne dina ci am tuyaaba bu ko sauvé parce que alal ji mosu ci jaamu yàlla lu bon rek la ci doon def beneen bi am na koo xam da koy def gaaw passer passer alal ji pour iñaane ndonam héritage am duñu am dara ñaar yëpp charia da koo tere moo tax nit kiy sukuraat alal ji muy joxe di ko séddale ci wàllu héritage ci miraas kooku du compter zéro la lu mu joxe bu ñuy héritage dañ koy nanguwaat parce que kooku dafa doon dafa doon xañ dafa doon xañ héritage am ñu bañ a am da leen a soxore iñaane bañ leen a jox ci héritage bi balaa muy faatu mu gaaw distribuer ko te loolu bi mu koy def wérul de dafa bàyyi bay waaj a faatu commencé ko def charia du ko considéré façon maye boobu du ko considéré façon sorexe boobu da koy annulé bu nekkoon ci état islamique bu ñu amee juge boo xam ne mooy def loolu juge bi da koy da koy annulé ñiñ joxoon da leen di woo bañ ñëw mu ne leen tegaat leen ko fi ñu teg ko mu daal di koy jox njaboot ci loolu noonu lay demee su boobaa bu nekkul nag ci réew muy laajte l'islam état islamique juge amu fi moom li nga mën mooy waar ko parce que du masala fatwa xadaal su su nangoo baax na su nanguwul baax niñ jox aussi nga xamal leen suñ delloowee baax na suñ delloowul baax na parce que mënoo leen forcer parce que yow doo juge xadis bi kon lu muy jàngale mooy bokk na ci sarax yi gën a am solo mooy nga saraxe moment bi ngay wér feebaroo nga saraxe li ngay saraxe fekk sa bakkan bëgg na ko ba nga nay koo joxe ngay saraxe sarax liñ ci bëgg mooy ngay saraxe lu bëri taxsal faqra gis nga da ngay saraxe taxsal faqra bu amee 5000 francs joxeel joxeel joxeel lu jege 500 wala jëm kaw mais 5000 francs nga toj ko sarax waa ji dërëm kooku sarax la boo xam ne laa taxsal faqra ah wa ta'mulul ghina moment bi ngay ragal ne yaa ngi ñàkk yaa ngi am njort yaa ngi rafet njort it ne day yokk parce que am na xadis buy ñëw maa naqasa sadaqatun min maal sarax du wàññi alal de comme ni ko ñu bëri yaakaare sarax du wàññi alal mais da koy barkeel da koy yokk wala tumhilu doo bàyyi xatta isa balagatil xulquum ba sa ruu gi àgg ci put gi ngay sukuraat xulta nga naan li fulaan kaza jox leen ma diw lii wala li fulaan kaza diw na am nangam wa qad kaana li fulaan te diw mooma amoon na soxla ak yitte te joxaloo fajaloo ko ko toppatoo woo ko alxadiyu taasi wal ishruun vingt-neuvième xadis mooy alkaram muy noblesse alkaramu mooy noblesse mooy jikko bu baax la aussi noblesse jikko bu baax la nekk nit koo xam ni nit ku noble nga nit ku nit ku tabe nga tabe nit ku tabe mën a joxe am jikko boobu dafa am solo moo naan abi hurayra yonent ci abi hurayra radiallahu anhu anna nabi salaa sallam qaal yonent bi alayhi salatu salaam wax na ni maa min yawmin amul benn bés boo xam ne yusbihu al ibaadu fihi illa malakaani yanzilaan bés boo yeewoo am na ñaari malaaka yoo xam dañuy wàcc bés bu nekk ñaari malaaka yoo xam ne ñoom saa bu ñu xëyee bés bi dañuy jóge ci asamaan wàcc bu ñu wàccee fa yaqulaani fa yaquulu dafay wax ahaduhuma kenn si ñoom allahuma yow yàlla aati yàlla nga jox munfiqan kii dépensé jaam bi dépensé yàlla na nga ko jox xalafan lu remplacé li mu dépensé wa yaqulul axar keneen ki di wax allahuma yow yàlla aati yàlla nga jox mumsikan kii téye alalam dépensé wul talafan li mu téye yàlla nga ko yàq talaf yàlla na yàlla yàlla nga ko yàlla nga ko yàq bu fekkee dafa amoon tool génnewu ci azaka saraxewu ci joxewu ci nay cee joxe tool bi na lakk wala gunóor yi lekk ko wala mu yàq bu fekkee alal alal ji na na naax saay wala ñu téye ko mu war a fay ay taxe wala war a fay wala war a fay ay impôt ba alal lu tax mooy joxewul ci alal ci kon ki nga xam ne da ngay joxe di dépenser ci yoonu yàlla malaaka bi da lay ñaanal li ngay dépenser yàlla na la yàlla di remplacer loo joxe mu remplacer la ko waaye bu fekkee da ngaa téye li nga téye joxe woo ko li nga téye yàlla na ko yàlla détruire yàlla na ko yàlla yàq. parce que lu tax mooy suñu borom su la séddee alal alal ji dafa am partie boo xam ne yaa ko moom mu lew la mais dafa am loo xam ne dafa war a àgg ci yoo ko jaam yi ñeneen na ko moom. lii sarax la lii azaka la lii hadiya la may la lii ainsi de suite loolu moo tax bàyyi xel kon maa min yawmin amul benn bés boo xam ni yusbihu al ibaadu fii jaam dañ ci yeewu illa malakaani lu du am na ñaari malaaka yanzilaan yiy wàcc fa yaqulu ahaduhuma benn malaaka ba di wax ni allahuma yàlla aati joxal munfiqan kii dépensé xalafan lu remplacé li mu dépensé wa yaqulu axar keneen ki day wax allahuma yow yàlla aati yàlla nga joxe mumsikan kii téye alalam bañ a joxe talafan nga yàq alalam alxadisu salaasuun kon li muy tekki mooy nit ki buy dépense te yàlla tax bu mu ragal li muy dépense te yàlla tax loolu du jeex du ko jeexal lu mu dépense yàlla da ko koy remplacer waatal mais nay aussi nay baaxul nay am loo joxe waroo ko war koo joxe am ñoo ko jox gis ñoo ko jox mën koo joxe du la yàqal dara joxe woo ko boo jàppee day day day sakkanal sa alal day sakkanal sa alal day tax alal ji bëri yaa ngi nax sa bopp da ngay jékki-jékki rek yàlla wàcc sa ko benn musiba boo xam ne alal ji ci lay jeexee ci lay dem fay loolu ay taxe fay loolu ay bor teg la ay impôt jàpp la nga war a fay ay mbir yoo xam ne xaalis bi ci lay jeex da ngay jékki-jékki gis ne dépense nga lu bëri ci loo xam ne ay détails la te mënoon naa ñàkk bu fekkoon yaa ngi yaa ngi sarax parce que saraxe bi ngay saraxe dafay protéger alal ji ba musiba du wàcc ci alal ji boo xam ne moo koy yóbbu alxadisu salaasun muy trentième xadis al adlu mooy justice justice mooy maandu loolu nag lu jafe suñ jamono la lu jafe suñ jamono lu tax mooy nit ñi dañoo maanuwul ci seen bopp bay maandu ci seen moromu nit benn bi aussi baatu maandu li ma leen waxoon baatu maandu duñ ko duñ ci sous-entendre ni ko sénégalais yi di firé sénégalais soo waxee maandu mooy man su ma taxawee fee ji tux bul ñëw ne ma tux dafa araam boo ñëwee ma ne la maandu woo lu ci sa yoon boo gisee kuy naan sàngara bàyyi ko mu naan boo nee sàngara baaxul maandu woo non waxuñu loolu loolu du maandu de loolu du maandu maandu mooy kenn ku nekk droit yi nga war a am ñu jox la ko te bañ la koo xañ kenn ku nekk itaa kulli di xaqin xaqahu mooy kenn ku nekk say droit ñu gardel la ko jox la ko li nga war a am nga am ko mais ñu bañ a jël droit yi jàmbur jox ko keneen koo xam ne mérité wu ko say droit aussi ñu bañ la koo xañ bañ koo bafoué ñu bañ a bafoué say droit dafa am loo xam ne dafa sacré ci nit yàlla moo ko jox nit balaa moroomu nitam di ko jox nit yooyu nga xam ne sa dignité la sa dignité la ñu gardel la ko bañ koo bafoué loola mooy mooy mooy justice loolu mooy maandu. Abu Hurayra dafa nettali waxoon nañ ci saxaaba yi kan moo ëppale xadis ci saxaaba yi ah livre bi ñu jàng nii 40 xadis yi ban saxaab moo fi ëppale xadis ah Abu Hurayra téere boo jël moo fi ëppale xadis loolu la yàlla def biñ tàmbalee ba léegi boo doon wàññi ñi fi ëpp liñ nettali xadis ci 40 yi boo moytul bu yeboo nga ne 20 yi 40 xadis yëpp bu yeboo nga ne 20 yi Abu Hurayra moo ko nettali mu ne sabaatun set a ngi nii set sept personnes sabaatun sept individus yoo xam ne zillahum allahu yàlla daf leen di keral fi zillihi ci keram gi yowma laa zilla bis bi nga xam ne ker amul illa zilluhu lulu keram ker googu ban ker la boroom xam-xam yi ñu ne am ñu ne dafa am garab gu yàlla di saxal ci bés bi bés penc bu jaam yi dekkee am ñu ne benn nuage la am ñu ne arsu yàlla la ah am ñu jékki-jékki ne yàlla mooy jékki-jékki indi benn ker boroom xam-xam yi dañ ci divers dañ ci am ay divergence wuute ci wax ci mais amul benn tegtal buy wane ban ker la ker daal dina fa am dañ koy gëm yonent bee ko wax ker bi ban façon ker la tegtal ñëwul ne ker gi lii la ndax arsu yàlla la wala nuage la wala garab la wala lan la mais yamal xiyaam jaam yi suñ dekkee ci génn seen i bàmmeel naaj bi dafay tàng chaleur bi dafay métti léegi suñu borom dafay def benn ker boo xam ne ker googu du ko ñëw rek ne puusal damaa bëgg a dugg ci ker gi de mais ker gi dafa am lu la fay yóbbu li la fay yóbbu daal la comportement la comportement boo amoon fii ci àdduna moo la fay yóbbu ay critères lañ fay tànnee critères ay critères lañ fay tànnee est-ce que yow bu fekkee da ngaa am da nga am bac da ngaa am bac nga nekkoon L1 mën ngaa dem fac médecine ah par la force fac médecine laay dem mu tax am naa bac mën naa nekk. teew teew ell nga génnee sa bac ell la te mention bi sax amaana mooy loolu mën ngaa dem fag médecine ah munu munul nekk munul nekk yomal xëyam aussi du ko dekki rek ne yàlla ker gi moom man dama see war a dugg non du noonu ker gi dafa am ay critères critères yi ku ko remplir moom la yàlla jox malaaka yi ndigal ñu yóbbu ko fa ni nga xamee ne tey fag médecine dafa am critère beneen fag am critère beneen fag am critère yàlla gi aussi dafa am critère di dugg jóg rek ñëw dugg critères yooyu lan la mu ne al imaamu al aadil al imaamu al aadil mooy njiit bu maandu un dirigeant boo xam ni dafa dafa am équité dirigeant bu jub bu maandu dirigeant boobu mën naa nekk boroom kër sa biir kër kër gi nga maandu fi ni nga gérer kër gi dafa ànd ak justice dafa ànd ak maandu yàlla lay fay yowmal qiyaam ci kër gi. da nga nekk directeur école nga maandu da nga nekk directeur entreprise wala société directeur usine nga maandu même da nga jiite jàkka jàkka nga nekk imaamu jàkka nga maandu. chef de quartier nga maandu sous préfet nga maandu préfecture nga maandu commissaire nga maandu nga nekk maire maandu nekk ministre maandu nga nekk président de la république nga nekk roi nga maandu nga nekk juge nekk procureur nga maandu nekk président tribunal nga maandu jiite nga dara GIE sa GIE sa boo ko jiitee nga maandu GIE nga maandu da nga jiite sax ASC nga maandu ci jiite bi jiite nga dara maandul loo jiite maandu ba ci groupe whatsapp si am na waa am day jiite groupe whatsapp daa am ñu muy favoriser benn waay mën naa wax lu ko neex du ko wax dara yow boo waxee rek mën na la bu avertissement bu ñaaree ma génne la kooku est-ce que maandu na maanduwul moo tax da ngaa jiite dara rek groupe bu mbooloo ne sa ginnaaw maandu da nga maandu te maandu nag lu jafe la lu jafe la lu tax mooy seytaane da ci am wàll lu tax mooy souvent ñi la jege dinañ defal ay faveur ñi la sori wala ñi nga bañ pour nga maandu ci ñoom dafa jafe moo tax yàlla ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala alla taadilu idiluhu aqrabu li taqwa déteste ay nit déteste ay nit bañ ay nit bu mu tax nga bañ a maandu ci ñoom am na koo xam ni moom waa ji comme jubóowuñ neexoowuñ lu waa ji baax baax soo ko laajoon du maandu ci moom ah kooku de ay mbiram moom man dama du non bàyyil ma noppi sax wax baaxul lu tax mooy moog waa ji jubóowuñ munoo fexe fexe ba waa ji baax munoo fexe fexe ba waa ji baax loolu lu jafe la moo tax nit ki bañ ko bu mu tax qualité yi ne ci moom qualité humaine yi ne ci moom qualité yi ne ci moom ci wàllu jikko jikko yu baax yi ne ci moom mu koy incarné ngir diine ah loolu bu ko ko iñaane bu ko soxor na nga maandu ci moom jëmale ci loolu moo tax mu ni al imaamul aadil njiit lu maandu njiit bu bu maandu wa shaabun ak xale jeune boo xam ne nashaa dafa màgg fi ibadati rabbihi ci jaamu boromam ci beneen riwaaya fi ibadatillah ci jaamu yàlla fii fi fii fii ibadati rabbihi la indi mooy lafzu Buxaari mooy dafa màgg ci jaamu boromam lu tax mooy jeunes yi souvent pour nga nekk jeune di jaamu yàlla dafa xaw a jafe saa boo nekkee jeune da ngay bëgg foox bëgg dem nawetaan làmb ah seetaan ay simb dem ay soirée way dem ay gala ainsi de suite ay caaxaan foo yooyu rek ngay bëgg mais nga nekk jeune di dem jàkka nekk jeune di jàng alxuraan di zikr di dem ay daas dem ay conférence ah loolu c'est un peu difficile il faut yàlla yàlla baaxe la yàlla defal la tawfiq vraiment yàlla orienté la ci droiture dëgg nga am fréquentation bu baax am nit ñu baax yàlla ubbi sa xol def ci mbaax nga bëgg lu baax mën a ne mën a mel noonu bu dul loolu c'est très difficile rawatina jamono gi ñuy dund dañuy dund jamono contexte boo xam ni caaxaan dañ ko favoriser dafa nekk caaxaan dafa nekk benn indi industrie boo xam ne ay nit ñoo ñoo ci ginnaaw di produire caaxaan di ko produire caaxaan ñu koy produire chaque jour chaque heure chaque minute ñu koy produire di fexe caaxaan wër aduna yow boo nekkee ci monde bu mel noonu nga nekk jeune yàlla baaxe la nga vraiment ngay góorgóorlu ngay def li nga mën ci sa wàllu diina ah kooku sant yàlla la nga xam ni du sa mbaa du sa du sa jàmbaar yow du sa jàmbaar du sa góorgóorlu ah mais mbaaxu yàlla la milieu bi nga juddoo wala milieu bi nga dëkk koñ bi nga dëkk wala quartier bi nga nekk xoolal ñaata jeune ñoo fa nekk comme yow nekk ci yeneen yow yàlla baaxale nga nekk ci mbaax nekk ci jub di jaamu yàlla am pas-pas bu wér am jikko yi rafet xam nu ñuy jaamoo yàlla gis jeune boo xam ne xamul sax nu ñuy jaamoo yàlla des fois mu da mu bu amee examen wala muy waaj concours ngeen di daje ci jàkka ji su paree ci concours wala examen bi déwén nga koy gisaat jàkka ji loolu yow da nga ciy sant yàlla moo tax wa shaabun nasha'a fi ibadatillah nekk jeune di màgg ci jaamu yàlla bàyyi ay caaxaan dafa jafe dafa difficile moo tax soo amee chance bokk ci jeunes yooyu yàlla dafa lay fay yawmal qiyaam keral bokk na ci troisième personne bi wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid nit koo xam ne xolam dafa wékku ci jàkka moom saa bu jullee mi ngi xaar julli jotaat mu demaat jàkka ja tant que amul ngànt jàkka ja lay dem wa rajulaani ñaar nit ñoo xam ne tahabba fillah dañoo bëggante te yàlla tax ijtama alayhi bu ñuy ànd ci yàlla ñuy ànd wa tafarraqa alayhi bu ñuy tàqalikoo ci yàlla la ñuy tàqalikoo amul intérêt aduna amul calcul seen lépp yàlla la damay bëgg nit ki ànd ak moom ñun ñaar du waa ji su ma àndeek moom damay siiw su ma àndeek moom dañ naan may ànd ak diw su ma àndeek moom nangam déedéet da nga ànd ak moom parce que waa ji da nga gis ci moom jikko yi rafet ngeen bokk profil nuroo ay jikko comportement am neex la nga gis ci moom yàlla kese nga ne xaaral ma ànd ak moom te yàlla tax parce que ànd ak moom yokkute la avantage la ci man ci côté diine jeex na amul benn calcul boo teg mais fii tey àndandoo yu bëri lan la mooy ay calcul la intérêt la moo tax intérêt yi bu jeexee bonjour les dégâts coow yi dafay tàmbali. lu tax mooy yéen ñaa da ngeen àndoon ci intérêt intérêt yi su jeexee ngeen ngeen ngeen tàqali ko ngeen fantasiro xoolal ñi ànd ci wàllu politique dañoo coaliser coalition politique intérêt moo leen boole bu intérêt bi jeexee day mel ni mosuñu ànd saaga divulguer ay secret weerante waxante lu bon xasante danga naan ñii xanaa mosuñoo ànd est-ce que yàlla taxoon yàlla taxutoon. moo tax ñiy ànd te yàlla tax yàlla ci la ñuy ànd ci yàlla la ñuy tàqali ko beneen bi wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid boobu ñu jàll dafa jafe mooy nit koo xam ne dafa respecté julli jàkka ci jàkka lay jullee heure jël day jot mu tëj butigam dem ci jàkka ci dafa jafe da ngay gis koo xam ni butigam day nekk nii jàkkaarloog jàkka ji waa jàkka julli mu lal sa jaadaam ci buntu butig bi jàkka ji julli moom mu nekk à côté di julli te jàkka jaa ngi nii gis koo xam ne fi muy jaayee fa lay kàbba di jullit jàkka jaa ngi nii gis koo xam ne biir këram lay nekk jàkka jaa ngi nii te amul ngànt lu tax mu war a dem moo tax wékk sa xol te jàkka di fa jullee ah dafa dafa nekk rythme boobu ku ko mën a dékku attan ko yemal xiyaam suñu borom lii la lay fay ak ñaar ñoo xam dañuy ànd rek te yàlla rek a tax bu ñuy tàqalikoo ci loolu la ñuy tàqalikoo ànd rek te yàlla tax dafa jafe tàqalikoo te yàlla rek a tax dafa jafe waaye lu tax nga bàyyi ko mooy da ngaa gis ne waaye dafa commencé am yoonu déviation commencé caaxaat commencé bëri ay fo waxatul dëgg ci ay caaxaan la nekk raay nga ko biir conseillé nga ko yedd nga ko waar nga bàyyiwul nga bàyyi ko te yàlla tax wa rajulun nit koo xam ni talabatu imraatun zaatu mansabin wa jamal jigéen moo ko sàkku jigéen joo xam ni dafa am grade jigéen ju foor waaye dafa rafet fa qaala mu ne inni axaafullah dama ragal yàlla loolu mooy yonent yàlla yunus afoon yonent yàlla yusuf mooy jigéen ji ko wowoon borom grade la no jabaru buur la no te jabaru buur buur la fii jabaru buur buur la doomu buur buur la waa ji waxoon na gardien buur sax buur la kon jabaru buur buur la jabaru buur moo ko sàkku ba pare jabaru buur muy zaliqa dafa nekkoon koo xam ne ku rafet la Yuusuf yàlla may ko may ko dëgër mu dëgër daal di abstenir loolu lu rëy la Yuusuf loolu yëkkatil ko ay garaat ba mu nekk buur ba nekk yonant lan moo tax mooy góor mooy jóg di wëri jigéen jigéen ñëw wër góor ne ko maa ngi nii mu ne ko baax na maazallah loolu góor gu ko def yàlla yowmal qiyaam lii la yàlla di fay mooy waxuma la jigéen ju jigéen ju am garab de waxuma la jigéen ju rafet mais bëriwaa na ci góor yi yoo xam ne jigéen ji nu mu mel baax na jigéen ji nu mu mel baax na léegi yow yàlla ne jigéen joo xam ni dafa am garab nekk jigéen joo xam ne ju rafet la nekk borom daraja ñëw sàkku la lu tax mooy ku mel noonu résister ko dafa jafe ndax li mu boole dafa boole am daraja boole rafet amaana ñëpp ko bëgg yow mu ñëw sàkku la ci ngeen mooy yàlla nga résister ko loolu loolu tuyaam boobu tuutiwul lu la ko yàlla di faye mooy keral la yowmal qiyaam wa rajulun ak waajoo xam ni qaal fa qaala inni axaafullah léegi qaala inni axaafullah boobu alimaamu nawawi nee na du charte ne foog mu ne ko damaa ragal yàlla mooy da koy wax da koy wax wala mu jëfe ko day wax day wax ragal yàlla gi wala mu jëfe ko da nga koy wax wala nga jëfe ko ñaar yi fi am ki ko wax mi ngi ci biir ki ko jëfe mi ngi ci biir axaafullaa bi imma qawlan aw fi'lan wax wala jëf da nga koy wax wala nga pratiqué ko wa rajulun ak waajoo xam te saddaxa dafa saraxe axfa mu nëbb sarax gi xatta la taalama shimaalu ba càmmooñam xamul maa yunfiqu yam tunfiqu yaminu lu ndeyjoor bi di saraxe beneen riwaay wa rajulun te saddaxa fa axfaaha xatta la taalama shimaaluhu ah am na waa joo xam dafa saraxe ci loxo ndey jooram foofu nga dégg ci aussi dafa bokk ci aadaabu aadaabu sadaqa ci tegginu sarax mooy loxo ndey joor ngay joxe dafa bokk ci tegginu saraxe mooy nga joxe ko loxo ndey joor dañ koo sopp loxo càmmooñ nit ki da koy defee rek bu fekkee ne moom benn loxo la loxo càmmooñ la am wala loxo ndey joor bi da cee gaañ wala loxo ndey joor bi am ngànt loo xam ne moo tax mënu koo joxe mais fil asl mooy lépp lu baax ci sharia ci diine loxo ndeejoor lañ koy defee kon loxo ndeejoor ngay saraxee booy sarax mais fii dangay gis njabarkat yi njabarkat yi njabarkat yi am na façon sarax yoo xam ne bu ñu la koy sarax yenn sacrifice yi pour mu atteindre mystiquement dañ naan joxe ko loxo càmmoñ loolu mooy wane ne jalgati la dèjà jalgati loxo càmmoñ la ñuy wax nit ki na ko saraxee dañ naan la saraxee ko loxo càmmoñ te boo koy saraxee loxo càmmoñ na nga nekk ci sele ba yoon benn croisement croisement boo koy saraxee bu ko saraxee ku jege ndeejoor mais saraxee ko aussi ku joxe càmmoñ nga joxe ko ko càmmoñ ki nga koy saraxee côté càmmoñ lay jógee bu mu jógee côté droite léegi saraxet yàlla tax kuy wut yaaba looy calculer ku jógee gauche ak droite ak milieu nord ak sud te yow da ngay sarax rek na jógee nord lu ci sa yoon na jógee sud sa yoon nekku ci yow tuyaaba ngay wut joxel am nga tuyaaba mais foog nga lijjanti waa ji ban côté la jógee sarax boobu yàlla taxut moo tax mu ne war a jul tasaddaqa axfa xataa laa taalama shimaalu ma tunfiqu yamiinu kooku li muy wane mooy ashiddatu fi l ixlaas ànd sadaqa mooy nit ki daal di taral lool sellal lool ci buy saraxe teel a tax parce que saraxe ngistal da cee yomb saraxe ngistal da cee yomb da ngay gis waa joo xam ne ma ko waxee woon su fi kenn nekkul buy saraxe benn juróomi dërëm lay ngëpp wala fukki dërëm saraxe lu mu tuuti tuuti bu sellee baax na mu nëbb ko nii la koy ngëpp ci loxo bi sànni ci pot bi wala mu jox ndànk waa ji bu fi nit ñi teegee mu bokk benn billet 5000 képp ko nag cat cat li lay képp def ko nii ba ñëpp a gis mu ne ko am kooku day dugg ci buntu ngistal wala booy saraxe da ngay yuuxu ca kaw eh taalibe kaay am waaw saraxe jarul yuuxu yow yaay saraxe demal ba dal nag waa ji ndànk ko jox kenn du xam ne saraxe nga ko loolu bokk na ci li nga xam ni nit ki war na koy bàyyi xel parce que buntu saraxe ngistal da cee yomb lool. wala sarax nit ki ba pare xas ko waxoon naa leen ko fi qawlun maarufun wa magfiratun xayrun min sadaqatin yatbauha ada wa rajulun ak nit koo xam ne zakarallaha dafa xalaat yàlla xaaliyan fekk dafa wéet dafa wéet fa faadat aynaahu ay rongoñam tuuru ay rongoñam tuuru mu daal di jooy lu tax mooy nit nit ñi li gën a yomb ci ñoom mooy jooy ci biir nit ñi nit ñi li gën a yomb ci ñoom mooy jooy ci biir nit ñi mais wéet jooy ñi koy def dañ leen di wàññi ak baaraam mu ngaa gis nit koo xam ne saa bu nekkee ci nit ñi ñuy waaraat wala ñu jàng alxuraan day jooy mais bu wéetee est-ce que dana jooy est-ce que bu wéetee dana jooy moo tax jooy ci nit ñi daa gën a yomb moo tax boobu bii moo gën a jafe moo tax yàlla bii lay fayee ker mooy nga wéet yow dong sa xel dem ci yàlla digle àjjana loolu rëy ci yow ba nga jooy mbugal yàlla digle ci bàmmeel ak safara yooyu rëy ci yow tiital la ba nga jooy xalaat ci maag jaayu yàlla ak say bàkkaar loolu amul fu mu la yóbbu ba nga jooy ah loolu tuyaaba bi dafa rëy parce que jooy bi lu tax dafa sérieux dafa sincère amul ngistal kenn nekku fi yàgg yàlla rek la kan moo xam ne yaa ngi jooy yàlla rek ko ko xam boobu dafa sell sell gi mu sell moo tax yàlla dala koy fay lan la koy fayee mooy daf lay defal zël yowmal qiyam daf lay defal ker li nga xam ne mooy yowmal qiyam yaakaar naa mën nañ taxaw foofu dese nañu dix hadis bu yàlla yombalee ñu mën ko jël ci benn fan bi des ah ñu daal di koy jël fekkee na nag yàlla yombalu ko yaakaar naa li ñu am aussi baax na hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Grazie uomini, stai dando un modello. Vedete che per una domanda per loro, nel mio E tu già plasmai quando ne a me questa genere di vario che saremo dentro, da me la trasmissione, e la mangiavo. Ciao, Thank you. Thank you.